ginnaaw bu ñu ubbee nuyoo yi ak di leen jàll jàmm comme nu mu waxee woon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ndax lii moom daawoon nañu def communication waaye lii lu bees la ci ñun c'est la première fois ay journalistes ñëw fekk presse écrite la di ñëw di jël gàmmu bi di jël histoire am ak taarixam kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla seen presse yi yàlla na ko yàlla leeral yàlla na ko yàlla yokk comme nu ñu ko waxee ni ñoom loolu rek mooy wax ji c'est important lu ngeen jël li c'est important wax na leen historique gàmmu bi ak ku ko sosoon ki mooy rahmatullahi alayhi Thierno Abdoul sal mu taxaw ci taxawaay bu rafet def ci coonaam def ci yéeneem lépp loo xam ne sunna laajoon na ko mu def ko ci mawlud bi mu woote waat jullit yëpp wuy ko ci mbokkam yëpp wuy ko ci taalibeem yëpp wuy ko ci képp koo di ànd jàmbam bis bi ci la ñu xam ni Thierno Abdoul ci lay gën a bég ci lay gën a bégale ci lay gën a ñaan loolu moo tax bu mu génn àdduna waat ñu continuer di liggéey ci loolu di ko suuxat di ko yaatal lu tax ñu ko yaatal ngir ñëpp xej ci yiw bi ndax noddkat day wax ni hayya alal falaax ñu leen ci texe ndax julli mooy texe kon nag wooteem bi mu woote ci gàmmu bi dafa wane ni texe kenn mënu ko am lu dul ci yonent bi sallallahu alayhi mooy bunt bi mooy caabi bi mooy lépp loo xam ne lii day jëm ci rasul sallam lay jaar ci yàlla kon nag kenn mënul def lu ëpp gàmmu kenn mënul def lu ëpp gàmmu kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di leen sant di leen gërëm waaye di sant ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi ñun rek ñu mu meññ ñi ñun mënuñu ci def dara lott nañu ci taxaw taxawaay bi mais suñu collaborateurs yi nga xam ne ñoo jël initiative bi ku mel ne Alassane Ndiaye dem woo leen def ci alalam def ci temps def ci xam-xamam mënuñu ko sant mënuñu ko gërëm yàlla moo am pay yàlla na ko yàlla fay ni ko waat coordinateur bi nu mu jëlee kàddu wax lu muy wax li guddeeg bëccëg dañoo bàyyi seen kër bàyyi seen liggéey naka ñun guddeeg bëccëg loolu yàlla rek lañ ci jublu yàlla mi nga xam moom lañ ci jublu yàlla leen yàlla fay mais yàlla barke yonent bi sallam yàlla na muur seen xam-xam dugg ci seen kër yi dugg ci seen itte yi dugg ci seen projet yi yéen tamit noonu <laughs> lépp loo xam ne yonent bi dugg na ci day am barke loolu daal laa bëggoon yokk xanaa di jox kenn ci xalifa yu fi nekk yi mu def ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh